sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad Karataini TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalu seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad dafa am secret bu ñu fi joxoon muy wàllu bayre jigéen bi nga xam ne dañ see defar ndomba ba pare defar si sangat boo xam ne ne lépp si wàllu bayre jigéen lay dox sangat bi nga xam ne nag pour jigéen ñi bëgg borom kër nga xam ne ne deux mois nga am boroom kër bu fekkee dafa am koy bëgganteel boo ko si defee sangoo ko juróom euh, du mat un mois te ñëwul takk si kooku moom si biir sangat bi dañ koy def waaye bayre jigéen bi nga xam ne ne dañ koy liggéey si ndomba nga xam ne ne yow góor yaa ngi nekk si bërëb boo xam ne ne bàyyiwul la xel wala joxunul la bopp wala lu ñuy def sax du la foofu bëgg nga ñu bàyyi la xel jox la bopp lool muy bayre jigéen bu am doole nga xam ne yow li ngay liggéey jigéen ñi ñoom ñoo ko soxla wala da nga bëgg jigéen ñi am ak yow affaire loolu mooy bayre jigéen bi nga xam ne ne ndomba la ak saafara ndax dafa am ñoo xam ne ne mën nañoo takk am ñoo xam ne sangoo leen gënal kenn looloo tax ñu indi si ñaar yooyu nga xam ne ne pour wàllu woowu la nga xam ne sangat la te bayre bi dafa ànd ak kaaraange ndax ñun duñ ñëw rek jox la bayre noonu bayre bi dafa ànd ak kaaraange muslaay protection bu dëgër boo xam ne ne yow mi bëgg bayre boobu noonu lay demee surtout nga nekk si bërëb boo xam ne ne moom yow da nga bëgg rek di jëflante jigéen ñi ñoom ñoo lay topp waaye nekkul loo xam ne ne rek ak mooy yàlla la ak nàngam ndax bayre yi dafa am doole lool di ñëwaat tamit eh, di waxaat ñi nga xam ne ne ñoo commandé woon tamit si wàllu ndomb yi nga xam ne ne pour wàllu fay coow la nga xam ne lépp loo xam ne ne yaa nga say dugg wala lépp loo xam ne yaa ngi koy wuti di ko lijjanti yi bëgg nga kenn du si wax boo déggee loolu nag toujours samay wax nan koy bàyyi xel ñëw ma di wax loo xam ne ne